وقلبك ولا سادات الأموات لكن أرادي عليهم كالسماوات وقلبك ولا سادات الأموات لكن أرادي عليهم كالسماوات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم bisimillahi rahmaanirahim barakatu cheikh al xadim ñu fas ne ñëw ci xaajo waxtaan fukk ak juróom benn ci téeréb sëriñ alhaaji mbàkke bi nga xam ne ci la dajale mbooleem li nga xam ne mooy ndénkaane yi sëriñ Tuubaa daan dénk mag ñi ci tomb 230 muy ñaar téeméer ak fanweer sëriñ bi nee na wàccoon na ma yéen wax naa ngeen dégg ma jëf ngeen gis ma bind bàyyi fi tomb ñaar téeméer ak fanweer ak benn sëriñ bi mas naa dugal tànkam ciw dal am lum ca daj mu ne nañ ko seet waaye bu dee si ndax buñ ko rey ñooña rey ko fa saasa xooluñu si ndax la wala déet yaakaar ne luy lore la fekk si ndax la tomb ñaar téeméer ak fanweer ak ñaar sëriñ bi mas naa romb sëriñ Abibu Mbàkke ak rakkam yi ñuy nelaw mu laaj ko kii la mu ne ko man la abibu ak mbàkke soxna astu sëriñ bi laaj ko ndax reer ngeen mu ne ko déedéet sëriñ bi ne man dey séq na ma ak seen baay kóllëre goo xam ne jombante naa ngeen di fanaan ci sama kër gi du ngeen reer daal di reylu ab gàtt tomb ñaar téeméer ak fanweer ak ñett sëriñ bi mas nañ koo laaj walla yu akub jàngkat ak ku ragal yàlla mu ne leen Cheikh Saad bu mooy yu alxaaji malik moo def jàngkat man nag maa ragal yàlla tomb ñaar téeméer ak fanweer ak ñeent mas naa am ay naar yu doon nuyu sëriñ bi ku ne naan sërif laa sëriñ bi ne leen ku ragal yàlla ku nekk sërif la tomb ñaar téeméer ak fanweer ak juróom sëriñ bi am na ku mas a yónni mbàkke kajoor ak guddi mu ne ko lankuma de waaye dama fee ñemewul tomb ñaar téeméer ak fanweer ak juróom benn sëriñ bi nee na bu ngeen bëggee xam ñi nangu ndey xool leen ñiy dugg ci sama bunt bi sama buntu kër bi ak a génn xar baaxi sëriñ Tuubaa ci tomb ñaar téeméer ak fanweer ak juróom ñaar mas nañoo indi dugub bi maam Thierno ci sëriñ Tuubaa sëriñ bi génn di ko xool ba mu yàgg mu am lu mu joxoñ ne ku ko bay ñu ne ko sëriñ àlla sëy njaay day moom moo ko bay mu ne nañ ko woo mu ñëw takk téere baat sëriñ bi jàpp ci ne ko bis nekk tey de wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim tomb ñaar téeméer ak fanweer ak juróom-ñett indi dugub bi maam Cerno ci sëriñ bi ñam jam bayaloon sëriñ bi wax sëriñ bi ne ko maam Cerno nee na maral nañ lool sëriñ bi wax jàngkat ya ñu jàng ma waaxibu ba àgg ci bayit wii nga xam ne moom laay bëgg a tudd naa la jalaala naa la jamaala mi man taala rabbi sama yi mu ne leen baamu waat leen ko ñu baamu ko mu yëkkati baaraamam jëme ko asamaan ne rëbbu sama yi sama soxla mooy ndox xiin wa sàqi di taw di taw ba ñoo ñii ñoo mujj ñëw ne ko doy na sëkk tomb ñaar téeméer ak fanweer ak juróom-ñeent sëriñ Tuubaa xaada lahu laahu maxtaara lahu nee na li may def ci nit ñu topp ko bu ma ko defoon ci garab itam ñu ne fa te duutuñu fa jóge mukk te loolu julli ñaari rakka moom a ko gën a jafe tomb ñaar téeméer ak ñeent fukk sëriñ ma jëmb si la mas nay defal sëriñ Tuubaa xaada lahu maxtaara lahu muy jàpp ba mu ci raxas tànk yi sëriñ bi ne ko ma jëmb xoolal tànk si tànk bi ni mu tuutee te li yëngu ci àdduna bi lépp moo ko yëngal xanaa xamoo ma jëmb man ku ma yaakaar sa yaakaar du tas ndax bu ëllëgee man rek maay taxaw fa sunu borom ne ko loo mas digle def naa ko te mosumaa def looy tere yónnante bi yónnante yi sax duñu ko man bu boobaa te bu boobaa ku aju ci man ci man lala suñ borom di àtte ci man la suñ borom di àtte kon ku ma yaakaar sa yaakaar du tas bu ñaar téeméer ak ñeen fukk ak benn sëriñ Mor sa nee na mas naa xëy si ci sëriñ Touba ba mu toogee gis kaamil boo xam ne dafa mel ne dañ koo xaw a sàggane nee na ma wax cim xelam naan kaamil bii de fi ñu ko teg doy na waar lool sëriñ bi ne ko ab Absa man sañ naa lu kenn sañul nee na may waxaat ci sama xel naan lii gën a yéeme xalaat rek ñu di ko dégg sëriñ bi ne ko inna allaha la yaxfa alayhi shay'un loolu mooy yàlla dara na buu ko ah, tomb ñaar téeméer ak ñeent fukk ak ñaar sëriñ bi nee na sëriñ bi nee na ñemewuma bor damaa am pay tomb ñaar téeméer ak ñaar fukk ak ñett sëriñ bi nee na mboolem ñi ma defar ñi ma defar ku na benn saa rek laa jëf ci moom waaye sama doom yi nag ku na jëf naa ci moom fukki weer ak ñaar tomb ñaar téeméer ak ñeent fukk ak ñeent am na bi sëriñ bi di waxtaan jaan ju rey ñëw tiim ko di melastiku sëriñ bi yëkkate loxoom jëme ko ne ko ndegam tàyyi nan tëye nañ sunu lor ci yow na nga saloor nag ci ñun mu jekk-jekk na mes tomb bu ñaar téeméer ak ñeent fukk ak juróom am na ci taalibe yi koo xam ne daa amoon jaan bii ñëw këram waxtu yoor yoor di dugg ci biir këram di dàq ay goneem mu wax ko sëriñ bi mu ne ko bu dikkatee demal ba tolloog moom nga ne ko ahmadu nee na mësta tooñ boroomam mësta tooñ moroomam te bëggul ko koy tooñ ba mu ko defee noonu la ko mujj a gise tomb ñaar téeméer ak ngeen fukk ak juróom-benn am na bi sëriñ bi di julli am jaan ju rëy ñëw dugg ci jàllabi bi mu wéy di julli ba mu sëlmalee taxañ ko dugg ak moom ca néeg ba sëppeel ko mu ngi ko sëppeelee mu sàppi ko doomi aadama mu ne ko lu doon say tànk mu ne ko képp ko am ku mas a ku ma mas a dégg ñu naan mooy njiitul àdduna jamono danaa ko dikkal natt ko ba xam moom la wala déet ci melo wii nag moo tax bi ma la déggee ma ñëw di la natt ba xam am na wala déet sëriñ bi nekkoon loolu rek moo doon say tànk mu ne ko waaw mu ñaanal ko mu ne mes tomb ñaar téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñaar sëriñ Tuubaa xaada la fu maxtaara la nee na da ngeen dem ba jamono ba jëmmi jamono ah, jigéen ñi bari lool say tëtticc téere yi bari lool dëgg tëtticc liggéey bari lool am tëtticc tomb ñaar téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñett Abdourahman at-Tanaqi yi nee na dafa mas a jógee gànnaar ñëw ci alxaaji Malick si di sàkku ci moom ab junni mu ne ko fekkoo ko fi de waaye fekk nga fi xol bu ko mën a joxe boo toogoon ma jox la ay ñaan yoo xam ne boo ko dee def léegi sunu borom wërsëgal la ma ne ko damaa yàkkamti daal di ñëw njaasaan ci alxaaji Mahmadul Kuntiyu diis ko ko mu ne ko am na fi waaye dafa am ay soxla yu fi nekk boo toogoon nag ma jox la ay turu yàlla yoo xam ne boo ko dee wérde léegi nga am xéewal mu ne ko damaa yàkkamte daal di ñëw njëriñ ci sëriñ Touba laata mu koy diis dara sëriñ bi génnee ñetti junni ne ko benn bi benn junni bii maa ko joxeel ki am xolub xol bu ko mën a joxe te amu ko beneen bi maa ko joxeel ku ko am te amul xol bu ko mën a joxe benn bii nag man mii am te am xol bu ko mën a joxe maa la ko jox kon nag loolu mooy li nga xam ne mooy waxtaanu fukkeel bi ak juróom benn tombeek paas juróom benn fukk ak juróom ñett muy 68 tomb it ñaar téeméer ak ñeent fukk ak juróom ñeent kon ñu taxaw foofu leen jox di daje incha allah ci fukkeel bi ak juróom ñaar